bëgg voilà xam na ñun li ñuy tëw am en ce moment te gis na ne yéen ak ñoom yéen a collaboré voilà yéen a ngi coordonné du na mm-hmm. ok léegi moom dina leen yeggee lépp rek mm-hmm. ñun ñoo ngi seen ngi fi mm-hmm. yee moom xam nañu ñun ñëpp dañuy ñëw voilà waaw bu ñu mënul li rek mën nañ la sa des waaw fu ngeen ñu teg ah? foofu la ñuy taxaw fu ngeen ñu teg foofu la ñuy taxaw ce gars-là. Mhm. vraiment nous tous on est très très fiers de lui. Mhm. parce que ñu ngi ñu ngi ñu ngi def lu extraordinaire waaye xam naa ci dara xam naa ci dara. Mhm. bu lekk buy xëy si bu yoree mbuus da nga naan kii super. yére yi amul ku ko mën a waar ñëpp. lu leer ku ne jëm nga sa wàll. loolu la moom loolu moom am na. góor ak jigéen. on est très fiers de Mouhal. lu Pastef bi aussi mooy loolu.

ans ginnaaw de dëgg la dëgg la ñëpp xam nañu 30 novembre lañ tëj. maanaam tey la seetlu nañu 18. dëgg la fekk ñu fi te suñu planning boole nañu ci biir ñuy gis leen. parce que dañuy toll Sénégal di dégg. kon nag am na lu ma ci gisoon. ba Canada sax dem naa ko passé par ñoom. te comme ni ko Ousmane waxee. nekk parlementaire. exécutif. ñoom ñooy. def mais ñun. am nañu sañ-sañu pour poser ay yoon. yoo xam ne dina compliqué. maanaam yokk yi nga xam ne. nekki ñu doomu réew ak fu mu ngeen demee ba doon ngeen taw bu ministère des ci ñu noppi dañuy bind leen mhm. te bu leen bindee dañ am obligation contre si mhm. situation boobu donc loolu mooy rôle parlementaire mhm. amaana nit sénégalais lambda dina wax loo xam ne ñoom duñ ko dégg wala buñ ko déggee duñ ko def ñun nag duñu ne dinañ ko def mais suñu kàddu bi koy dooleel mooy yéen ñi ñu voté yéen ñu def seen kon tey ñun ñu def nii bu leen ko am solo la te yàlla dina def incha allah ko rabbi bu fekkee ne lii passé na ndax amaana ñi fi nekk mënalu leen bëri mais mën nañoo wax attirer seen attention mais bu yàlla soppee mbir yi dina nekk loo xam ne lii ñu ñëw du doon ñu sey incha allah ko rabbi parce que yéen xam ngeen ne ñu jooy nañ ko fu nekk li ma leen wax dem leen assemblée kii ngeen parti yi ngeen gis dama leen suivre seen jëmm taxu gis nañ

may leen may leen ñoom it ay parlementaire la ay député ay député ay député allah allah na la pour euh, jël bismillah wa ziar nañ leen baax a baax a baax man ngeen taaxir lu dégg loo xam ne vraiment si si njëriñu lépp lu ñu mën a def pour génne ci jafe-jafe la bismillah boo nekkee ci digg mbedd bërëb bi nga nekk ñëpp ñeme ko moo ñu ubbi la sa benn ko boo ni patriote la xam nañ ni boo ko waxee du la donc donc fii nekk seen kër. loolu xam nga ne saa jóge leen fi mais sa xol moo ubbi moo tax ñeme ngeen daal. ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant aussi Ousmane Touba ak ñi muy def ak ñi nekk fii yëpp ñu jàpp ci liggéey suñu gars yi ñu ngi woon tey moom seen seen ñi nga xam ne def mbokk yi fekk dañ xamal ne njabootu biir kër ak njabootu bi ci kër benn yëpp ku ko xamul président Ousmane Sonko ko xam ne ñëpp la njaboot ci loolu la ñu nampatal bi ñëpp ba ñu jàpp ñu adduna bi wër nga képp képp fii nekk Sénégal boo xam ne bi état du war na ko respecté ak ku mënti doon ndax dafa sol dara bu mat wala ndax costume cravate la sol wala ndax yére dafa xotee ak fu mu mënti nekk Sénégalais Sénégalais ñoo yem ñoo yem ci wërsëg bi Sénégal di séddee wërsëg boobu nag nit moom bu koy téye di tànn kan la koy jox comme koy jox ñii topp àll bi topp yoon bi topp avion bi topp géej bi topp lu ne montagne yëpp di ko jéggi ba egsi fii duñu ay faaxman duñu ay désperado déedéet c'est des citoyens c'est des citoyens Sénégal nga xam ne ku ci nekk li la état su Sénégal war a jox daf la war a jox ko war a sëg mais lenn rek rek rek mooy nekk leçon bi nga xam ne moom la ñuy wax ñëpp ki nekk ci réew mi ak ki nekk fii fu ngeen mënti nekk ay doomu Sénégal bu la kenn xool xeeb waa Sénégal bu la kenn xool yëpp waa Sénégal mooy ku ci nekk ci ak circonstance bu mu mënti nekk donte sa dal dafa dagg na nga doxal dignité na nga représenté sa pays dignement mhm. na nga xam ni ci un ambassadeur du pays doxal ko comme yow ni nga ko nekk comme Ousmane ni mu ko nekkee comme man ni mu ko nekkee comme keneen ak ni mu ko nekkee comme yéen ñii ni mu ko nekkee bis ni ki tey jàpp leen ni réew mi incha allah dañ ko waxoon fële dañ koy waxaat doxul réew mi tabax réew doomu réew kese mooy tabax réew te yéen ñi réew Sénégal ak fii sori na mais xoolal fii Sénégal asalaamaaleykum maaleykum salaam. ñebbe sax am na fi ndambe sax ana borom ndambe. café Touba gerte caaf am na fi café Touba. Euh, vraiment euh, sant yëpp. jigéen ñi pour nu ñu sonnee yu baax yi nu affaire bi. ربنا يساعدنا على كلكم كل شيء ان شاء الله ان شاء الله yow ak man bu ñu dajante waat mukk yow ngay sëg wala man may sëg parce que li ñu wax dañoo am yéene tax def ko ci ni ko yàlla bëgg ci ni ko Sénégal yi bëgg def ko ci jub macha allah ku doon na yaa waa ci yoon mais li ñu moom ñëpp ñu ñëpp ñoo ko bokk Ousmane dafa waxoon ni jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci jot na li ñëpp bokk ak Sénégal fu mu mënti nekk ñu jot ci wàll macha allah maggee ñii tamit waaw ñii ñii aussi ay parlementaire lañu voilà kii mooy kii moo leen jiite moo jiite groupe parlementaire bi mais kii député de la diaspora la kii aussi député de la diaspora la kii aussi député la ba léegi assemblée nationale voilà bismillah donc Aliou moom elle a déjà voilà <laughs>

le mot émergence nous avons au Sénégal Sénégal n'avez émergence émergence mais vous avez une diaspora diaspora qui au quotidien surtout à l'émergence. Mm-hmm. donc émergence pour vous cette maturité tamit war a wax wa Sénégal ne leneen amna na mhm. parce que ñu nek Sénégal mënuñu ko xam té li wax rek nit mom lo dundul mënu ko xam donc dès qu'il sort le nga gis développement réel mhm, mhm, ni mo amé fi le bus on te dit à 8h c'est 8h pile c'est huit et cetera ñun on est à des années lumière de loolu donc lolo moy tax ñu war a conscientiser suñu famille motax tax sànq boy wax dem né buñu ñu tàyyi di def buñu ñu tàyyi na nit ku nek jël peut-être vingt personnes trente personnes dans son aile def leen dans un groupe WhatsApp et cetera di leen wax ni leen les li les politiques au Sénégal depuis l'année 1960 la réalité mm. parce que le travail de constatation, est important parfois mais je sais que souvent les Ousmane Sonko guerre, gagné 2024 et je le dis souvent que Ousmane Sonko gagné na pour parce que tout le peuple sénégalais est politisé mm-hmm le peuple sénégalais est politisé. Il n'y rôle, il n'y a même pas 10 de la population qui s'intéresse à la politique. maintenant tout le monde dans sa majorité. Mhm. est politisé donc rek la victoire de voir xam ne sommes lu rëy la. lan moo encore une fois li ma expliqué part bi ñu de la part belle bi ñu la diaspora yóbbu bi

wax nit ñi lan moo am feneen lan mooy développement réel par rapport à nax nax nax yi nga xam ne moom lañ nax depuis depuis la nuit des temps nit ñi mën a conscient de ça et puis jël seen responsabilité et je pense que loolu su amee cette cette jeunesse qui est quand même l'excellente majorité de la population suñu ko amee les gars man je pense que on a même plus besoin di taxaw naan lu ñu bëgg moo fi am et je pense que dynamique bi nga xam ne moom la au delà même de Pasteur qui est à coup sûr incha en 2024 comme ni ko président man waxee ce changement am des structures et des Mais il faut que même ça perdure dans les 10, 20, 30 années à venir. Nous avons un peu de Ousmane Sonko, nous avons un peu de

jërëjëf kontaan nañ léegi ñu ñëw aussi ba léegi rek comme niñ koy waxee du du ñàkk kenn ku ne am na lu mu fàtte parce que li mu li mu expliqué buñ ko dégloo daanaka am na benn kàddu rek bi bu ñu Ousmane doon jox bu tënk loolu yëpp le don de soi pour la patrie voilà donc tënk na li nga xam ne vraiment grand bi wax nañu ko yëpp muy kenn ku nekk ci ñun dañu am waré té njiit bu baax bu ne ci ci temps wax na parce que le président Kennedy nous l'avait dit ici aux États-Unis les mots sont pareils peut-être de différentes façons Mais ask not what your country can do for you but ask what you can do for your country donc euh, voilà so it's, it's a patriotism manam nit mom ak lu mu meuna a doon bu bëggee réewam bëgg développer rek daanaka lu bari da ciy changé te loolu la ñu gis ci Ousmane Sonko ndax ñun loolu lañ ko toppe man ba léegi xam nga moom laa leen di wax nee naa leen du ma membre Pastef ñu bari buñ ma ko waxee nee eh, du ma membre Pastef mais Ousmane Sonko la à cent quatre-vingt pour cent voilà donc xam nga léegi jaxasoo am na jaxasoo am na ñun ñii ay partisans lañ ñun ay sympathisants lañ maanaam ñun incha allah même bu Ousmane Sonko faloo ñun ñooy sénégalais yooyu nga xam ne bu ñu woon ne Ousmane fii ñu ne leen maa bañ man fi laay toog ak sama sénégalais mm-hmm. ak sama xarit yi mm-hmm. parce que bu boobaa boo defee lu dul naka si noonu ñu man a ñëwaat ñu ne la ah déedéet waxoo ñu woon lii mm-hmm. ne woon nga ñu mbir mi day jaar yoon donc na jaar yoon rek wala du nelaw guddi benn dana am moom soit mbir yi jaar yoon wala mu am ñu dul nelaw te ni ñu ko gisee gars yi dana jaar yoon parce que déjà programme Ousmane Sonko dafa leer amul lëndëm donc dañu déglu suñu kilifa bii aussi moom it mu vraiment dem voilà. non mais Ousmane ma ci du ma ci du ma dañu am ay kilifa yu bëgg seen réew. am nañu leadership. ay njiit waaw généreux ak mm-hmm. jeunesse. Mm-hmm. yaa participé à la jeex na. Mm-hmm. le leadership. et la jeunesse. mooy ndaw yi. macha allah. suñu suñu xarit parce que leen offrir lu tax ñu toog Sénégal. jaar naa la lii wóor na ma ni ku ci woowoon na la kaay bay. chaque mois. benn ferme agricole nga am deux cent cinquante mille. wallaahi wallaahi.

lii laa leen wax ba ngeen fal mm-hmm. ah la ma leen digoon laay def waaye yéen it mm-hmm. yéen it da ngeen war war loo mm-hmm. da ngeen ko def c'est la philosophie parce que loolu moo tax ñu ci créé suñu mais dama gëm ni ñii nekk fii pourquoi la diaspora appartient à Pastef parce que dañu ñëw gis li ñu gis nag fii. Mhm. ay jinne développé yi. ay doomu aadama ñoo ko def. Mhm. pourquoi warul am fi ñu moo tax diaspora bi. je suis après sûr que am na ñoo xam ne ci genn wàll yëpp bu ñu jëlee réew mi yëpp dañuy am problème. li ñu gis fii dañu bëgg seen bopp te ñaan ñoo ko liggéey. métro yi kat moo ko gas. suñu suñu maam yi ñoo ko gas. nit ñu ñuul ñi ñoo gas lii la. gas na yëpp liggéey bi yëpp dafa war a jeex nag. dina jeex incha allah je pense que jeex na ba pare. dañuy continuer gëm ko continuer liggéey bi. diaspora bi mu wax jëm moo am diaspora daal. samay doom boo xam ne bàyyi xel yi bokk nañ ci ñu bàyyi xel parce que gis naa ci ñoo xam ne ndeysaan ñu ne gis fonk ba dajal ko ko bàyyi man ko ko jaay ma ko man ko tax ma jaay ba léegi mu accepté ñu bàyyi xel ñu passé man dama ko mere yaay kenn ko bàyyi bàyyi rek dina ñëw avec le temps yaay ji moo gën a bëgg sax Ousmane Sonko gis nga affaire bi. Hmm. dañu gëm yàlla nag. Hmm. xam na yàlla amee liggéey. mais yàlla yàlla bay sa tool. Hmm. sama waa ji moom moo ko jàng. laa yukallifu laahu nafsan illaa wusahaa. lu am. loxo yàlla mu ngi ci mel ne góorgóorlu pour mu jàpp. am te loolu c'est ça le secret de Pastef. cent millions la fi gars yi dajal. loolu ban parti moo fi am. amul amul

bu ñu naree jël réew mi mel ni nii yàlla yàlla booy jox. boo amul benn doomu. jaabanul jaabanul benn li homme ko sañee. Mm. au contraire. dañ lay nax rek ba rek. après ñu yàlla yàlla def jàmm. amiin yàlla taxaw. amiin amiin amiin amiin amiin ñii ñii suñuy ñii tamit de. ñii ngeen fi gis. ñii ngeen fi gis. dama bëgg rek bu gaaw. pour ngeen xam ne c'est pas des n'importe qui xam nga Pastef dafa doon parti boo xam ne rek bariwuñu wax mais jeune bii ngeen di gis nii par exemple lépp luy élection ci suñu diaspora bi fii muy Pastef moom moo koy gérer moo tax résultat yi fii day gaaw quoi mbir yi day tegu ci yoon rek mu daal di gaaw voilà donc qui Mahdi kii Mahdi Mbengue xam ngeen ko kii mooy suñu trésorier kii lépp luy koppar koppar yi ñu koy denk bari na lool man xam naa ne ku ma ko joxoon fii léegi ma daw dem euh, Mexico wala na moom mooy garde euh, koppar yi kii mooy massification mais kii sama garde corps la. moom mii da waaw waaw waaw kii ku ma fi jéem a dóor léegi moom mu defal la bagage. kii moom ku ma jéem a dóor moom. kii moom adjoint am la kii moom tamit. macha allah daanaka Pastef moom boo bëggee dégg-dëgg boo bëggee boo gisee nit ku sérieux rek nit ku sérieux ci dëkk bi rek jarul nga koy laaj foofu foofu voilà yéen yéen yéen ñëpp da ngeen sérieux jeex na tàkk ana pat ana ñuy sérieux wul comme ça ñu xam ne ñoom ànd fii ñëpp dañoo sérieux voilà voilà jërëjëf en tout cas kontaan nañu kontaan nañu ci yéen li ñu fi indi nag comme ni ñu leen koy waxee toujours mooy jéem a saafara toujours nit moom tant que mi ngi lay yëg mi ngi ñëw mi ngi ñëw amal yaakaar amal yaakaar bu ñu ñëwuloon ngeen war a tiit mais comme ñu ngi ñëw di wax ak yéen di leen déglu am leen yaakaar te day baax incha allah day baax merci beaucoup merci Mafal ñu lay remercier bu baax mais Mafal jox ñu ñetti kàddu ah Ah, merci merci beaucoup merci merci beaucoup merci merci merci merci merci